gannaaw bi ñu julee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ñaanal sëriñ Mountakha xaadimu rasul mu yàgg fi lool ci wér tey nag dana am luñ wax waaye dana am luñ junji waaye dana am luñ bàyyi dana am luñ wax dana am lum juñi dana am lu bàyyi li ni wax li ni wax mooy bi ñu santee yàlla mi ñu bind sant Cheikh Ahmadou Bamba sunu sëriñ sant suñu waajur wi ñu boole ci sëriñ Tuubaa amuy sëñ Baara Doli yàlla na fi yàgg ci weer di wax ne it sunu waajur wii nga xam ne moo génn àdduna ci biir koor gi yàlla na ko sunu borom xare àjjana rafet nañ ci njort ndax am na sunu ngërëmul waajur rafet nañ ci njort ndax weeru koor la rafet na fi njortu yéen ñi nekkoon ci moom doon nekk ndoog moom kenn ku ne yëkkate ay kàddu seere ko foofu nag lay tàmbalee wax ne lii nekk kër Serigne Bara Doli Mbacke muy ak njabootam ak njabootam nag buñ ko waxee ay doomam a ngi ci ay doomi xolam a ngi ci ay soppeem a ngi ci li ñu war ñun muy ñu nekk jawriñ li ñu war ñun muy ñoom ñëpp kenn ku ci ne ci ñoom téye naa la fukki loxo ak sama jikkoy bopp kenn ku ci ne ci ñoom kenn ku ma mën a boolee ak ñoom yàlla bindutu ko loolu dama bëgg mu leer kenn laa wax kenn ku ma mën a boolee te samay rak wala kenn ku ñu mën a boole te ci ak lenn bu doon politique sax man jar na ma bàyyi politique ngir ñoom na leer kon dama bëgg waa Sénégal rawatina Touba gii ñu bokk ñu ñu xam loolu man sëriñ du Bara Dolly nag samay bët ñu bari dañoo wax ne kàggu laa ci politik ngir expérience ñu bari dañuy wax ne ku am engagement laa waaye am naa beneen bind bu bees ci politique bind bu bees ndax dama jàpp ne politique kenn du ko mokkal ñëpp xam na ne ku sincère ci ànd laa ndax gaa yii fi ne ñoom ñëpp ba ci kii gaa yi kenn nu ko turam ma doon jàkkaarloog muy sonk sax am na amoon na maa moom relation ñuy demlante ak di ñëw waaye bi nga xamee ne féete na ci wet ma féetu ci ak wet boobee laa coupé téléphone nu ko tubaab wax ak moom bu ma dajee ci moom aw xew sax wala dara damay sëgg jàll ndax xam nga lu tax bañ ñu ne taxaw naa ak moom wax ak moom wala nangam ak nangam Malick Gakou sama kër la daan ñëw. ngor xaaji guddi ñu toog di waxtaan ba fajar Déthié Fall suñ bëre yoon ñoo taxaloo woon kon Karim Wade duma ci wax dara ndax na nañ ci avion am na fu ne président Macky sàll mii fi ne tey kenn umpaliwul sama digg moom te nag kenn ku ne xam na ne bu ko xeex jotalee ci réew mii tey ñuy wax ban sénéral moo gën a taxaw ci xeex di xeex fépp ci diine ci politique bu nit waxee dëgg ñu ciy joxe ay ay ay nomination man na maa tàllal sama loxo ne man na maa nekk numéro man na maa nekk numéro un ay fetal tàkk na guddi ngir man jiiñ nañ man lu ne ngir moom ma ne ci dëkk bii fu ne dëkkali nañ ma fa ma jàkkaarlook ñoom sama mbokk mu ne jàkkaarloo naa maa moom ci dëkk bi ay nag hmm? dama bëgg ni ko Abdoul Ahad waxee léegi nii nit ki honneur du dara xaalis du dara waaye honneur mooy dara na leer lii ma fi def lépp ak ko def lépp ñu nit moo mën a wut xaalis waaye honneur ay nit a ko joxante honoru seexul xadim nag moom am naa ko sant naa ci suñu borom ah, ndax fu ma dugg fu ma dugg ñu xam ne njabootu Serigne Touba dugg nekk ci sàpp ci sa ci kanam laay nekk kon cëru Serigne Touba moom sant na yàlla mm-hmm. Mm-hmm. waaye dafa am fu nit di toll ab dayoo am na fu nit di tollu aw doxeenam am na fu nit di toll ci digganteem ak i mbokkam am na fu nit di tollu digganteem ak ñamay àndal ah mu ne soxla wut honneur waxut dëgg man soxlu ma salaire soxlu ma ay oto yu rafet soxlu ma ay kër yu rafet Serigne Touba dénk na ma ko bu yàgg avant Macky Sall ndax ñëpp xam na ne oto yu rafet ñëkk dugg ci dëkk bi man la léegi nag ma ja bind bu bees mi mooy lan mooy damaa jàngat ne politique dafa fiiroo waaye damaa jàngat ne fiirut ndax yow min am ba tey la dafa mel ne bokkut ak kin am cinquante pour cent bokkut ak kin amagut da ngeen fi may waxee dama ne yow min am cinquante pour cent yow min am zéro pour cent waaye yow min am cent pour cent dafa mel ne bokku leen aw doxeen ak xooleen man damaa jàpp ne ki nga am 100 pour cent kooku nga war a gën a téye moom nga war a gën a mën a defal ba ki nga amul 5 pour cent wala moom war a gën mën a defal ba ki nga amul 100 pour cent war a mën a xool ci moom Abdou Lahad dëgg nga wax man nag duutuma gan ci politique heure bu tàngee dafay mel ne man damay kaani leen ma sax def du ma mën a toog léegi-léegi damay gësëm gësëm wàcc samay escalier ne waaye est-ce que jar na ko ci man sax may jànkonteeg lii ba yàgg ma ne déet du ma seetaan ndax du ma seetaan ki ma àndal ñu ko fiy néewal doole ci dëkk bi Idrissa Seck ñëpp xam ne bu ma saa dugg ci dëkk bi ay at topp naa ko kan mooy jàkkaarloo ak ma heure bu ma dawee dugg ci dëkk bi rek bu ngeen geestoo sëñ Modou Bara Dolly ngeen di gis ñépp gis nañ li xew démbit kon wax nga ko waaye nag léegi yaa xay si mulaana lu naar yi di wax toj nañ fi samay bureau ak yu bëree bare bëri di am dama ne du ma junj du ma eggale de damay junj yi may wax yépp rek naa junj ndax bis bi laaju ko ndax damaa woote ngir dimbalante dama woote ngir taxawalante ak jàppalante waaye may junj loolu tuuti li ci des yéen journalistes yi jox naa leen temps duutuma wax nag benn bentoo ndax bentoo wax naa ko benn yoon duutuma ko waxaat de xam nga li tax ma ne duutuma ko waxaat mooy ñu bari da naan bu sëñ moo di dee wax rek ñu ne ah daa lu bëgg ak ah nangam a nangam déedéet man bëgguma dara lu dul honneur ndax honneur bi ñu am ci sëñ Touba honneur bu nu nit ma a doxat dañu koy jox ngir bëti nit ñi waaye honneur bi ñu sëñ Touba jox doy nañu sëkk. kon foofu ab junj la ñu yori nopp mel na ma dem Mbàkke danañ ci xam am ay dégg ak ay soxna ay dagay ñoom waaye Cheikh Abdou Lahad maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ndax as gor nga ndax li ngay wax wax wane man kenn moomu ma képp kuy tàntal Macky Sall rek maa nga fa lii wane na ko lii wane na ko ñu bari bu gisee suñ toogaay tey xam naa ñu bari du du nelaw tey ah. ndax xam na liñ man maa yow am am madame Mbacke wax na ko léegi nii bi ñu see nee nañu eh. beneen bi ci tegee mooy dama bëgg dafa am lu ma gëm parti boo ci nekkee jotoo ci say droit dangay xeex waaye bul bàyyi da ngay ne ci biir xeex ba jot boo demee nag ba xeex. ba jeexal say bal jeex nag am nga droit def loolu la neex waaye say dangay xeex bu bul gaaw a bàyyi waxoon naa ko sama sama benn mbokk mun ne ma diw bu ñëwee danaa démissionné fekk ma poroxaan dinaa démissionné mu ne ko bu ko defee noonu boo ko defee noonu baaxul kon li may tënk Cheikh ab Lahad mooy dëkk bii di Touba am na ci ndaw ñi seex may wax na ko leegi nii nee na bëggut a gis benn mag benn mag la wax buy kii ñun république yi ñoo ko wax maa ko ma am benn baat rek bu ma koy wax dama naan ko mag ñii dëngal mag ñii dëngël nan jub rek ngir ñu wute am liñ bëgg waaye Modou Bara Dolly moom mag bi fii jubalut mu joxoñ la baaraam joxoñ naa leen ci kanam président bu toogee fi ma joxoñ leen ndax li ni xeex guddi ba bëccëg ñun ñëpp dañ cee bëgg ndam kon comme ko dañ cee bëgg ndam ñi nga xam ne jubaluñu day wanee ndam yooyu duñ ko am te loolu laa dul seetaanam ma bëgg ni nga ko waxee léegi nii la ko mel ni sëñ Modou Bara Dolly bu tax taxawee naan ay son man son yi fii lañ ko tasee ci biir kër gi dama ne nan ko tasaat liggéey leneen loolu mooy sama gëm-gëm parce que mbir bu la jigut nga def ko wax ko benn yoon man bu ma soloon lu bu la toog fii tey bu su bu jiguma musuma ma solaat ko jiguma bu gannaaw subaa duutuma sol mu bu la keroog bi ma daanoo ci oto ba ak président mu moom couleur boobu solatuma ko dem nañ ci élection présidentielle perte ko dem nañ ci local perte ko dem nañ ci législative perte kon nan baatu son nan ko bay nan xool leneen luñ war a toog liggéey ci dëkk bi joxante ay loxo dooleel ndaw ñi jàppale leen kenn ku ne man cee gis boppam xam nga ne kilifa gu mel ne maam góor aj ne su absorbe ñu naan di wala nangam di ko xaajale ak ak gis ci boppam bala kañ ca li man bari keneen noonu keneen noonu seen loxo ñi yor ay mouvement ak ñeneen ak Ali ñoom ci des gisuñu seen bopp ci son yi tey ñooñu fan la ñuy liggéeyee fan la ñuy dama bëgg ah honorable ci taabal waxtaan waxtaanu kese bu génnee woo ndaw ñi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom waxtaan ak jigéen ñi mbir mi ñu xool nu mu koy doxalee parce que li ci des bari de sëñ Karim maa ngi lay sant si Mame Mbaye Niang bi moom mooy maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm mbir mi nag sëñ Assane Bousso sëñ Assane Bousso moo fi taxawal convergence moom bu waxee mel na ne wax naa sëñ Moustapha Amar ñoom ñëpp maa ngi monde rural bi sëriñ si ñoom ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ma wax ne sëñ Moussa Fall Mourou Sadef ma wax ne bu ma jógee fii li ñu joxe ay parti lay doon monde rural bi ci laay njëkkee danaa leen jox amlo sukaru score fa sama doole tool bu ma ci jegee ci 14 communes yi daara alxuraan yi danaa leen jox bu ma ci déggee responsable yi nga xam ne ñooy responsable politique yi général xam nga ku ci ànd ak laate ku ci ànd ak Samba ku ci ànd ak dem danaa leen jox bu ma ci jegee zone bii ma dëkk di rek danaa leen jox xaajalu ma nag ku ñëw ci nga bokk ndax jàpp naa ne benn la bu ma ci jógee li nga xam ne tey mooy résistance bi ma àndoon ak ñoom am lu doon xeex danaa leen jox buñ ci jógee du jaami yàlla yi nga xam ne bu ma dajee wal ak ñoom mbedd du ma xam anañu du ma xam ñooy kan danaa leen jox ci yàlla leen jox bu ma ci jegee nag yéen ak journaliste wàllu biir la ci biirum nekk lañ koy diggante wa salaamaaleykum wa rahmatulah